maskot bi mascotte bu ñu ko waxee rek am na lu ko waral mooy ñëw indi ay gindi yu leer ñu seeti ki nga xam ne moom mooy Thiamas ak Bour euh, Bour ak El Hadji Abou Bilal mascotte TFM lan lay wax ci anniversaire bi tey. merci merci merci merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xale ne na yàlla dafa jàmm waay defal leen xéewal dafa leen mbégte. jërëjëf Thiamas na nga def. ku baax maa ngi lay siyaar alhamdulilah ngi sant ñëpp Thiamas. ba yaa ngi am jàmm. ñu ngi am jàmm jure Thiamas. alhamdulilah alhamdulilah mbokk yi. ginnaaw ba nu santaate yàlla julli ci bi. Uh-huh. tey nag ku ñu invité miin ko. du nu sori. Samba Sine maa ngi maa ngi lay fay Thiamas ci li nga ma tuddee Samba Sine ndax ci dossier yi nekk si sama tur fii ci télé bi ci dañ ma embauché. jërëjëf dafa am ñett yoo xamante ne da ko da ko da ko fay présenté ci réew boo génnee Samba Sine bi Abu Bilal ngay wax boo génnee Abu Bilal Abu Muhammad nga teg ko. waaye Kouthia doo ko ñëw. waaw Kouthia à l'époque bokk nga ci ñi yëkkati drapeau bi taxaw TFM yàlla mi def tey ñu am 17 ans yoo xamante ni nii GFM bi da koy def joyeux anniversaire xam nga jàngate loolu. Euh, bi ma fiy ñëw maa ngi ñëw diggante fin 2007. ak début 2008. fin 2007 ak début 2008 waaw donc boo xoolee ñoom def nañu sept ans may soog a ñëw. def ngeen ñoom def nañ sept ans. waaw TFM group bi. Hmm. def na sept ans ci rajo bi sept ans juróom-ñaari at man may soog a ñëw. ok def naa fi ren fukki at toog nag télé bi. mu boo ko boolee muy fukki at ak juróom-ñaar. fukki at ak juróom-ñaar moo ëmb rajo bi télé bi ugfm yëpp. ok kon télé bi def naa fi fukki at. dëgg la fukki at yooyu nag li koy li koy firndeel maanaam mooy. Euh, yàgg bi nga xam ne liggéey nañ ko ca rajo ba ñam naa rajo ba ñam tele bi. Ah, ñam nga télé rajo ba. ñam télé bi waaw. ok euh, ñuy génnee samp télé ña nga ca rajo ba di ñaan pour yàlla may ñu télé. Mhm. ba yàlla dogal ñu jóge ci rajo dal ci tele dal ci télé. Euh, télé nag dafa am lu koy jëmmal. Mhm. jëmm jooju nag ab drapeau la boo xam ne moom mooy jëmmal li nga xam ne moom mooy suñu. drapeau télévision. dëgg la muy couleur bii nga xam ne mooy rouge blanc noir bii. dëgg la mooy drapeau TFM. mooy drapeau bu ñu amee drapeau Sénégal mu jëmmalu ci àddina bi ñëpp xam ne ko. Mhm. drapeau TFM bu télé yëpp tegoon seen drapeau suñu couleur bii la mooy rouge. rouge noir ak blanc. ma daw ak moom fee ca Médina indi ko samp ko fii ci bunt bi na enfin TFM au Sénégal. ok kon nag mbégte la tey bu télé bi amee fukki at man ma daal cee taxaw wax. ci li nga xam ne mooy jaar-jaar gu gàtt googu te bari lool lu ko jëmal tey jërëjëf li ko jëmal tey kii di nga xamante ni mooy Abou Mouhamed moom la bëgg waxtaan at moom actuellement nu nga gisee taxawaayu TFM taxawaayu TFM macha allah fa tubaab fa kàll la TFM defar nañu bëri defar nañu bari fekk na capital immatériel koo xam ne nekkul woon ci dara mu jël ko def ko mu dara. laa ilaaha illallah. ku askanam xeeboon mu jël ko darajal ko. darajal ko ku nit ñi nit ñi doole. TFM jël ko may ko doole. may ko doole koo xam ne dafa amoon lu ko neex mu bëggoon koo tasaare ñëpp yëg ko war a wane ko ñu daal di koy feeñal TFM feeñal na defar na gàkk-gàkkal na ay gàkk-gàkk waaye gindi na nit waaye tamit tegaat na nit ci yoon waaye may na nit li nga xam ne mooy ouverture indi ko wërsëg boo xam ne ci la mën a ci la defaroo ba xamante ci ay nit yoo xam ne tey fa tuwaar fa kàlla bu santee yàlla gestu gis TFM dana xam ne lépp loo xam ne am na ko yàlla ak TFM tax mu am ko loolu mooy taxawaayu TFM informé yëgle Euh, euh, euh, sensibiliser waaye tamit fexe ba moytuloo nit ñi ci loo xam ne ay nguuka la ay ngàkk-ngàkk la wala loo xam ne ay toj-toj la yoo xam ne wax dëgg yàlla lu lu lu lu àdduna bi war a moytu TFM mu ngi ci dox ci information bu leer ci éthique ak déontologie ñu daal di koy nampatal ca rajo ba nga xam ne jikkoom loolu la woon télé bi daal di koy jël adopté ko wane jikko yooyu waaye tamit rafetal li nga xam ne moom mooy information ak divertissement ci bépp secteur. laa ilaaha illallaah nee naa la wax na léegi tudd ko. waaye wax na lu wax dëgg yàlla ci fukki at yi taxawaay bi jàngat bi jàppale bi wax dëgg yàlla kii nga xamante ni mooy Abou Mouhamed leeral na ko waaye fenn rek laa bëgg nu tëjee ko actuellement ñu ngi féete 17 ans. di GFM. waaw di 10 ans wu. TFM euh, euh, euh, TFM. waaw ci biir ans yi fan lañ jëm. waaw loo xamante ne nii boo ko joxatee askan yi wax dëgg yàlla di dañu ci am mbégte ak la waaw parce que bi muy ñëw dañ ko jël daal di koy wane. Mhm. ñu ne ndax dina dem wala duñu dem ñu xar si suñ tànk tubay ba ñëpp fekk suñu. Mhm. am na ñoo xam ne tey ñu ngi TFM dañ doon seetaan naan kañ laa fay dugg tey ñu ngi toog ñoom la ñuy seetaan. dëgg la. TFM dafay defar doomu aadama waaye sax la. sax sax la goo xam ne tey télé bi yóbbu na foo xam ne moom ci boppam. jëmm jë ci boppam moo ko fa jiitu waaye la war a doxal jëm jë pour mu egg fa jëm jë ko fa jiitu laa ilaaha la maanaam tey TFM bu doon takkandeer la takkandeer ba dem na jëm ji jëmm jaa ngi nii waaye takkandeer baa ngi fële waaw loolu nag boo demee ci àddina bi yëpp dëkk boo nekk boo jàppee da ngay gis TFM mhm. boo déggul làkk bi sax di nga xool gis ne li ñuy wane ci culture ak ci information foo nga dëj kumpa ba xool dëkk bii lu ñuy wax bu dee Inde la bu dee Chine la bu dee Japon foo dem da ngay capté TFM loolu lu ko waral mooy borom kër gi dafa investir ay milliards yu bëree bëri bëri bëri mhm. pour fexe ba sénégalais bu nekk foo nekk ci àdduna mhm. nga mën a fàttaliku démb si say cosaan mhm. ci musique ci musique ci culture ci waxtaan ci aada ak cosaan ak ci lépp loo xam ne information la te mu won la ginnaaw nga nekk fu sori te mënoo ko am teefe wala la dëgg la damay bëgg jërëjëf wax dëgg yàlla am nga ci loo xam ne nii wane nga nu ko jàngatal nu ko ko li TFM defar lépp ci biir réew mi wax dëgg yàlla Abou Mouhamed wax nga nu ko waaye mënuñoo wax TFM wax anniversaire ba jàll te waxuñu wax dëgg yàlla benn tomb su taw nga mel ni ko benn entre parenthèse sa diggante ak Youssou. waaw sama diggante ak Youssou mooy projet bi dañ cee ànd ak moom. Mhm. pour jàppale ko nag ba mu egg fi mu jëm ni RFI mel ci àddina bi. Mhm. TV5 mel ko ci àddina France 24 mel ko ci àddina bi moom mooy taxawaayu vision Youssou Ndour ci beneen TFM bu bees. dëgg la parce que nag fukki at yi dañ cee taxaw. Mhm. ndax fukki at boo ci saxalee garab. ci fukki at mën nga cee am ker. mën nga cee am keru. mën nga cee am keru yaa may dégg. Hmm. donc ñun léegi suñu taxawaay nekkatul ci li nga xam ne biñ commencé ba tey ca la ñu taxaw dañoo bëgg woon ginnaaw ca la ñu taxawoon. wan nit ñi leneen lu yees loo xam ne noonu la àdduna bi di doxee. dëgg la mooy vision yu Youssou Ndour. Mhm. fexe ba télévision Futurs Médias. àddina bi di ko seetaan ci langue yëpp nga koy dégg en version anglais. di ko dégg ci français. waaye di ko dégg ci yeneen xeet yoo xam ne dañ koy mën a gis comme ni ñu koy gisee ci France 24. ci arab ci lépp foofu nañu jëm. ok ndax xam nga ne ñun suñu concurrent nekkatul ay télé bi ak. télé bi télé bee déedéet suñu concurrent internet la. Eh, internet ni ñu di sëggee seen téléphone di xool internet bi. loolu la ñu bëgg a jël xëpp ko ci li nga naan mu bokk benn doole pour ñu mën a am visibilité moo tax mu indi IGFM dugal ko ci kër gi. ah mm-hmm. da ngeen jëlee IGFM dugal ko ci biir kër gi. daal di koy njambaan mu jaxasoo mu gën koo safal. laa ilaaha illallaah. ba pare nag dañu bëgg def ay télé. yoo xam ne kon ni Sénégal di amee ambassadeur ca Côte d'Ivoire ak ca France. Mhm. ñuy am suñu ay succursale télé yoo xam ne day am ca Paris. Mhm. am ca New York. Mhm. am ca Japon di lëkkaloog ay télévision yu mag yoo xam ne dañuy jox ay information ñu leen jox ay information ca fa ñu toog nga xam ne foo dem dañ naan la Mamadou Ndiaye ca Al Jazeera wala Mamadou Ndiaye ca. BBC wala ñu ne Mamadou mbay ca fële wala ñu ne euh, Thiamas ma nga ca New York di def reportage ba Caamaas ca tàng tàng mu taxaw mais dootuñu amati loo xam ne dañ koy capturer ci ay information jàmm ko wane ñun ñooy doon suñu ay image bopp fa nañu jëm actuellement du développement et le monde de la motivation et de la sensibilisation envers l'information d'une motivation interne laa ilaaha illallaah wax na ko ci ñu neen deeta waaye moo tëjee ko ci tubaab kooku mooy Abou Mouhamed waaw lan ngay digal rek askan wi ko digal télé bi waaw li ñuy ak ci xalaatu Youssou Ndour bi mu mujjee toog moom daf la ma Abou Bilal nan nga gis tey lu ñu mën a def pour yokku télé bi mën ne ko jàngalal xale yi. nga ni jàngalal xale yi. na jàngal xale yi. mu ne ma lan ma ne ko wax ma ci li nga mën de way waaw ku ko jàngaloon ba ci yow doo ko. dootoo ko man dootoo ko man waaye télévision Futur Média 2021 dañuy taxawal école. école université boo xam ne de l'information. li nga amee sës si nga xam ne gouvernement bee ko moom dañuy am école boo xam ne da ngay jàngale éthique ak déontologie formé animateur formé animatrice présentatrice ak li nga xam ne moom mooy ay commerciaux ok maanaam benn université la boo xam ne lépp ci communication ak ci marketing lay doon taxawal nañ ko ba pare ñu ngi koy développé ci du yàgg dootuñu nangu te jëlite yi yeneen animateur di débauché jeey jeex day jeex débauché moom bu yoo ku ne fa nga nekk nga góorgóorlu ci la ngay on va utiliser nos propres produits. Mhm. pour promouvoir nos produits. ok kon daal dootuñu wutuñu benn animateur boo xam ne. suñu ay réalisateur ñu ñoo leen di ut. Kouthia Show mais Kouthia Show suñu réalisatrice bi Fatima. ok mais fii la nekk. fii la nekk ci télé bi ci télé bi la defee formation ak ak ak tout ak say moyens ak bëgg koo def njabootam jàppale ko ñu taxawu ko mu def ko. ok léegi nag caméraman yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñooy doon ay professeur dañuy mujj ay ñoom seen ak ak ingénieur euh, Soumaré ils vont être des professeurs dans l'université bu yàggee Soumaré doo ko mu defal la son parce que tamit kenn kilifa la seen jëri bii dootu taxaw fi di la caméra fii deux ans dootu ko defati euh. Fatima bii dootu nekk di réaliser ñoom ñëpp dañuy mujj arrêté lii dem nekk ay professeur ci université bi nga xam ne mooy université bu TFM groupe Futurs Médias parce que tamit béy day weetu ba tey. waaw bi laa xar day weesu ba tey et puis suñu comportement. ñun animateurs changé. kon suñu comportement changer comportement xam bu ñu wax ak askan bi miroir du Sénégal ñu waxal ñu xool image bu rafet di ko wane. te di soigner langage direct dafa metti mën ngaa wax safaan ba ci tàng tàng ba nit ki. déggee ko neneen déggee ko neneen internet mooy tontu léegi tele loo def ci télé boo génnee internet tontu na nañu rafetal image yi bi. nañu sàmmaat image télé bi nañu bëggante suñu biir ñun duñu ay concurrent suñu concurrent nekkatul télé TFM Sen TV wala RTS wala 2STV. déedéet déedéet concurrent internet bi la ndax internet bi ngay liggéey ñu félicité la internet bi nga def erreur ñu daal lay critiqué loo bëggee nag ku lay félicité ëpp li lay critiqué da ngay soigner sa langage sa comportement moo tax Youssou Ndour fas yéene taxawal université de la communication du groupe Futur Média jëm ko ci xarala média jëm ko ci xarala communication. Hmm. jëm ko ci animation présentateur dootuñu débouché kenn ku nekk nekk fa nga nekk góorgóorlu fa te toog fa da